lan tamit yaakaar naa balaa may def tour de table ñu tàggatoo rek dinaa laaj li ma ko laaj tamit parce que combat am nay combat yu mag yu bëri yu taxaw mhm. hmm? Balla Gaye 2 Tapha taxaw na Sa Thiès Eumeu Sène taxaw na mhm. hmm? Bombardier Franc taxaw na mhm. ah? des na ah bëri na bari na bëri na Gris Bordeaux taxaw na ah bëri na combat yu ba bëree bëri rek ah rëg-rëg waaw non rëg-rëg ah, ah? amagul adversaire moom Reug Reug amagul adversaire mais Sa Thiès Eumeu Sène bi nga xam ne mu yegg si buma bu ma bu Sa Thiès euh, am na sens ci Eumeu Sène bu ma la laajee par rapport ak ah, Eumeu fekki bi mu am ci làmb mbër moom mhm. mbër moom mbër bu jël sa avance mhm. mun na laa daan mhm. ñoom ñaar ku nekk mën a daan sa morom mais ñun ñoo ngi ñaanal Eumeu ndam lu sedd guy comme ñun Pikine lañ dëkk fa lañ féete ñoo ngi ñaanal yàlla Eumeu ko jël bu yomb bu sedd guy te bañ waaw na entraînement rek yokk contact li ma jàpp mooy arbitre sifflé moom la jëm. day dem ci kawam xalaat quoi. Hmm. loolu la mun loolu la xam. mun koo ñaax attaqué la am ah, la mun quoi. waaw ah, loolu la mun. ndax loolu muy def am na euh, kii ne. non foog mu def ko seen parce que loolu la mun. Hmm. da ngaa yàq mënta xaar. waaw ah, munoo munu ko. loolu la mun quoi. Hmm. xam nga mbër forum moom soo leen moom foog mu essayé la ko def. dina jàll wala du jàll moom loolay problème moo tax ëm na ko préparé rek. attaque bi su ko defee waaw su ko attaqué mu fekk fa dara. mais xam nga moom suñ lay. ci li ñuy wax ne mag nga mag mag nga ba jox la booy ne la grand contre petit. Mhm. am na combat bi ni muy demee rek gars yi naan kon ki génn na làmb ji. Mhm. comprendre nga. Mhm. moo tax na entraîné boobu comme booy bu ñëwee mu mu daan ko gars yi ñibbi. mu daan ko gars yi ñibbi waaw gars yi ñibbi waaw. Tapha Tine Balla Gaye. Tapha Tine Balla moo war a moo war a kii Tapha Tine moo war a double effort parce que mbër bu la daan. daan la mbapat ci lu ñu wax man seetaanu ma ko. seetaan naa ko mu daan ko aareen. waaw kon daan na la ñaari yoon. soo leen amee combat nag mu nekk si ay dynamique yu garaaw dynamique de victoire. Mhm. daan ay Boy Niang ay yooyu yëpp mu daan leen teg la fi ay victoire yu baax. Mhm. instant bi warul bëre Balla Gaye di këpp yelwaan boobu te Balla Gaye ay tolof tolof la jógee. Mhm. Tapha Tine temps normal daa war a confirmer ci kaw Balla Gaye. il faut war a confirmer. daa war a confirmer mais Balla Gaye nag su entraîné ba jàpp ba am forme neexu la bëreel de. Hmm? waaw Balla mu nekk ci forme. waaw neexu la bëreel. lu tax nga que dafa mën a bëree. Hmm. waaw Balla Gaye dafa a bëree. Hmm. waaw moo tax Tapha Tine moom lu mu liggéey na ko xeeb. Hmm. waaw Balla Gaye bu moo gis ñuy dugal nii si ci réseaux sociaux yi nii su paree. waaw baar bi teggi loxoom gaa yi nekk si ginnaawam. Hmm. du neex du neex a dëral de. du neex a tëral. du neex a dëral ki yàlla que le meilleur gagne. Hmm. que le meilleur gagne quoi. Franc Bombardier. Franc Bombardier moom Franc moo ëpp sens. moo ëpp sens. waaw parce que Bombardier làmb ji jaralatu ko dara. waaw ah. Bombardier instant yi moom man sama xel ma gàtt day xaalis quoi. tax nga. waaw eh, ah, man moom waaw est ce que est ce que boobu benn défi maanaam daan benn daan daan naay xale sax mais daan na Balla Gaye naa waaw daan waaw moo tax ma ne daan naay xale mais xale gay xale gay si Modou Lo la yem Balla daan na Modou Lo daan nañ xale yi nekkoon si laamu jëm te booba Jéy ko daan d'accord naa moom su dee xale moom su dee xale lay uta daan rek mun na bàyyi quoi mhm. man moom su ma nekkoon à sa damay bàyyi mhm. parce que booba Jéy amatul lu muy prouver boo bojjee eh, instant yi amatul dara lu muy prouvé islam eh, lamb boo bojjee mm, su la daanee eh, sax du am njëriñ du saf boo bojjee moo daal Franc loolu amul amul xorom ku daan Modou Lo daan Balla Gaye daan ñëpp boo bojjee boo xoolee Yékini kese la daanoon yeneen mbër yëpp daan na leen ñu bëreel donc su la daanee amul sens mm-hmm. ok am na solo galas mu mel ni. grand mais mais ñooy profité di siyaar ñëpp mm-hmm. di ñaanal